Ngexoox daanaka mooy kuréel boo xam ne dafa dajale ay ndaw yu bëri ñëpp dëkk si Ngexoox pour ñu xool situation Ngexoox fu mu toll daanaka question ndox bi dafa nekk question boo xam ne moom la ñu commencé parce que dafa nekk loo xam ne mënut a xaar parce que Ngexoox day toog ay weer i weer du ñu am ndox am secteur yo xam dañuy am ndox yenen secteur yi duñu am ndox té loolu dafa jafé parce que population bi amuñu moyen pour di dem di jënd ndox bo xam dañ ko filtrer parce que amna information yo xam jot nañ ko buñ ko joté ñu daal ko compiler buñ ko compiler ñu daal di ko traité gis né question ndox bi forcément pour ñu mun ko résoudre il faut vraiment mu am audit pourquoi ñu war auditer parce que dafa am structure bu ñu tuddee AGIFOR manam moy association bo xamné mom mo moo yor lépp lu jëm ci walu ndox té population bi ku ne si ñun da ngay génnee sa copal diko jox agifor diko fay mu koy dugal ci gafagam té ba tey Agifort amul benn bilan bu mu présenter population Ngexoor té ba tey ñu am ndox bu am qualité ñu am ndox bo xamné vraiment mun na satisfaire population bi ça fait plus de 8 ans que situation bi mu ngi fi motax ñu né dañuy jóg dal di wax dal di casse pour xool vraiment nan lañuy def ba ñu auditer agifor mais aussi lu jëm ci forage bu bees bi moy château d'eau bu bees bi dañuy jot ay information

population bi mun a xam pour mun a jël ay matuwaayam qualité ndox bu ñuy consommer je pense que euh, ñu fi teew yëpp même yeen journalistes yi gis ngeen ko gis nañ ne ndox bi dafa xonk cooy ndox bi dafa xonk cooy parce que ndox bi dafa am calcaire muy benn beneen bi mooy euh, mécanisme de filtrage ndox bi baaxut manam problème technique la parce que ndox bi nuñ koy filtrer mo baaxul moo tax suy egg ci kër yi ba nit ñi diko consommer day nekk ndox bu xonku coy te ndox bu xonku bi ñepp xam nañ du ndox bu baax te ndox bi mun na andi ay jafé jafé ci wér yaamu population bi moo tax ñu né nañ auditer Agifor suñu auditer Agifor dinañ xam jafé jafé fu mu situé wu ku nekk ñu engagé sa responsabilité pour que ndox bi ñu régler ko de façon définitive